waaw dama bëgg rek ñu lancer appel à tous les responsables ak la population de Pikine ñu xam ne fi Pikine tollu tey dañu war a dépasser nit ñëw di leen jox yére wala di leen jox t-shirt jox leen xaalis ñu mobiliser leen après dem yoonam Amana, sax am na lu mu koy jural ci politique waaye fa mu dëkk la koy yóbbu tey dañu gis le ministre Moussa Diop ñëwoon na fii à Pikine boobu ministre microfinance la digg woon fi 600 millions chaque commune 12 millions la fa dugal tey jii ñuy wax ak yéen marché central au poisson digg woon na fay financement femmes yooyu ba tey marché Joola jotuñu dara Tay président dafa nommé 16 communes 16 14 régions Sénégal yépp ay délégués yi nga xamné ne ñoo géré mbirum politique en tant que candidat mu tek ci ne képp ku mën dara dima ma def ko fa nga dëkk suñu gissé ministre Moustapha Diop di tendance ak ku melni Mamadou Mamoul Diallo ak yeneen responsable Yépp ñu ngi koy dégg Tay ñëw pigine wara jël suñu stade génné alal ju takku def ko ci ci ay tendance politique dañ ko talul Pikine liñu soxla tay moy ñëpp fekkee nañu AS Pikine ak yeneen club de recevoir à Guédiaway tay liñu soxla moy defaral nañu suñu stade ci 1 milliard 300 suñu bàyyee ku mel ministre Moustapha Diop nek maire Louga ñew ba Pikine génné alal ju bëri fay ay car huit cent fay ay car cinq cent ñu jóge fu nek Sénégal ñew yaq suñu stade dellu Pikine ñun ñooy am problème de wa deuxième division té tay ñu ngi soog première division ci mbirum politique nag lay wax dama bëgg président Macky Sall xamne bukki bi ma ton président war mang koy wajal fi lañ fekk li ay rembo don ay ma carte ma caution ay serigne wota place de l'obélisque di wone mbolo taxul nga falu tay ji mënuñu comprendre Moussa Diop di ñëw pire pigine di fessel estate ngir dara lul ndega nek directeur de campagne président Macky Sall en tant que candidat moy tane directeur de campagne du ngay fessel sa mbolo ne ko amna doole ay naxate bu moytuwul nag lañ naxoon président Wade lañ koy naxee c'est des gens yoo xam ne ay pouvoiristes lañu ñoom ñoo nekkoon ak président Wade tey ñëw nekkaat APR am na ci maire nekk ci ministre na dem liggéey liggéeyam